waa ji mu ngi tudd Bakary Camara képp kuy fréquenté wala sax ngay aw ci canal 4 Gueule Tapée nga ko xàmmee ndax liggéey bu am solo bi muy def ci circulation routière Bakary mi ay atam toll ci 62 ans moom nag liggéey bi mi ngi ñuy xamal ni amul benn engagement boo xam ne état daal dina ko def ak moom ndaxte it ci ay waxam Bakary mbir mi da koy defee ak passion loolu tax na it Bakary ay feem lay lijjantee tali bi. man état teguma fi mais damay ñëw pour def sama dafa ma war ndax damay jàpp état di liggéey bi ma ko defee même maire bu bu gël tàppe bi euh, pay moo woo fii woo ma ni ma loo liggéey fii ñu pointé la ma ne mënu ma ma damay def rek ngir askan bi waaw def ngir yàlla laay def waaw ngir yàlla nag boo koy def nag yàlla fekk la si waaw même euh, Grand Yoff bon loolu laa fa nekkee commissaire Mballo victime la même chose lu nekk la ma defal wax na ma sax ni ma il faut que ñu jëwlewte beneen côté sax nga yi ngi liggéey foofu ñu lay pointé fii damay liggéey ne ñu may pointé vraiment maa ngi gërëm euh, maire bu yóbbu Gueule Tapée bi pay mu ma jël teg ma fii gis sama liggéey mun ma ku la li ma ne ko kenn sant ma damay defe te yàlla rek a tax mun fekk sama bureau mu ñëw ma ñëw bureau mu ñëw di ma euh, ma loo liggéey fii ñu pointé la ko da koy gërëm di ko sant te aussi yéen mu aw ma seen fay waaw ndax lu baax sow sax nga ma koy laaj wàcc leen ngay wax man ngeen def li ngeen def waaw ndax li ma def nëbbu ma si dara liggéey rek moo ma tax a jóg voilà. ak ni koy defee dafa doon loo xam ne da nga ko yàgg a def wala da ko def nii rek par parce que ni ngay ni ni ngay lijjantee circulation bi loxo yi day dem bopp bi tànk yëpp daal mooy dem da ngay def signe yi. waaw ndax euh, loolu. Euh, dafa dafa nekk ci sama euh, kii quoi xam nga su ma gisee boo chauffeur yi euh, borom oto yi su ma su ma leen xoolee rek su ma leen dóoree kii rek ñoom ñu dóor kii ça fait léegi nag man dafa am sama ay xam nga des fois da nga jàngale ba ci ba ci biir nga kiiloo gars yi au moins waa pédagogie bi quoi ça c'est la pédagogie te bon jeune sportif bon vraiment fu ma jàllaloo gars daal gars yi jàll waaw. ci la ci football football laay def naa def cent mètres naa def athlétisme vraiment naa def naa def discipline yu bële quoi discipline bële def naa ko. voilà moo tax ma ànd ak caawte j'ai 62 ans nag ma dem ba retraité waaw 62 ans waaw am naa soxna am na ay waaw. ko doon wax euh, naam wax nga ne li ngay def da nga koy def par euh, bénévolat parce que da ngay participer ci dëkk développement dëkk bi mais tey am nga deux ans tey li ngay def nii euh, ñaanoo et tout mais tey bu askan wi bëggoon def retour à l'investissement lan nga leen di wax pour ñu def ko. vraiment askan bi moom vraiment ñoom ñëpp ñoom kii quoi ma yëg vraiment. fu ñu toll dafa ñu ñoo ngi may di defal ñu romb yéete dara may ma wala seen alal jox ma neexal ma ñu kontaan si man daal vraiment kontaan na si man. fu ma fu ma toll ne ala père ala père vraiment sa liggéey rafet na ñëpp a ngi koy wax sa liggéey rafet koo gis loolu rek yi comme ma leen man uniquement yéen a tax may sonn waaw ndax askan bi moo tax may sonn nit ki nag état da nga koy jàppale maire yi da nga koy jàppale ñoom bu leen seet. benn xaar ñun la kaay ku ci nekk rek war nga mën a bay sa waar fii quoi franchement parler ku ci nekk war nga mën a béy sa waar fii man a circulation dafa mës sa neex mës a neex waaw vraiment waaw. Euh, si man maa ngi si sécurité maa si benn agent euh, ay agence euh, yi dalal bi Presta bon sama directeur ma ma monsieur Siré Diallo monsieur jàlloo monsieur le directeur mi ngi Thiès. da nga service militaire mais ba retraité. ba ah. waaw limite d'âge quoi. waaw bon quarante ans après bon ma nekkoon Sagam def 8 ans. après bon ma jóge fa ñëw fii. ñu ñëw fii dala presta. dala presta actuellement fa laa nekk. léegi nag guddi gi laay liggéey bëccëg bi su ma ñëwee nag nekk si circulation bi. loolu dama siy sant yàlla ndax man. kiiwu ma sam bopp yàqu ma sam bopp fooy ma bopp dinaa am benn secret nag bëgg ko wax wax mais man toujours saa yu ma yeewu balaa ma dara man ndox mu tàng naan chaque jour que jëfe damay tàngal ndox di ko naan di tàngal ndox di ko sangoo yooyu day dëgëral eh, yàq waaw yooyu daal day dëgëral te je mange beaucoup de fruits beaucoup de vraiment bon ay légumes ay kii yooyu vraiment dama koy jël euh, de kii ndox bu sedd bi bon dama ko euh, du ma ko man euh, loo loo ndox mu tàng rek laay naan presque non c' est très rare ma koy naan waaw. na ñuy mhm. bi dafa xaw a manqué wala wéru ñu bëri ñu ngi koy foog lay wax ci loolu. xam nga àdduna boo gisee am na ñi nga xam ni. ndax ni ma koy defee du matin au soir de matin au soir dama di jaaxal. ak intensité di jaaxal fekke du dara yàlla moo ma kàttanal rek xam nga boo bëggee li ngay def yàlla da lay jàppale da lay dooleel waaw te askan bi aussi kontaan si man du ma mën a du mën a bàyyi damay continuer rek man yàlla moom ma def loo noonu du question dof du question dara dara jotuma ci sain sauf dara jotuma waaw lii moom bon kii rek ambiance kii dara si man daal. affaire passion la si man rek jàppale gars yi comme euh, kii xam ma ñëw fii def naa ko fi euh, quatre ans quatre ans def naa ko fi avant sax maire bi euh, di ma woo maire Gueule Tapée Grand Yoff avec commissaire Malo dafa ñëw pendant neuf jours ñu affecté ko mu woo Mbalo bu Grand Yoff ni ma euh, doyen man neuf jours laa fi am liggéey bi ngay liggéey nii mais je suis très content mu yëti xaalis may ma encouragé ma ma koy def am na xam ne sax je replace fukki policier sax sur le terrain mën naa ko remplacer waaw ñoom ñëpp ñëpp duñ koy wax commissaire boobu dafa kontaan si man xolam sedd si man moo tax balaa may ñëw fii dinaa ñëw laal foofu ba ay ay 14 heures yooyu ma ñëw continuer fii 16 heures après ma dem monté ji fanaan yëfu la Grand Yoff lii moom daf ma neex vraiment du question dara mais nit ñi nag xam nga ni nit ki da ngay dégg ñuy wax leen neex kii da xëy na bon peut-être wéru fekk du loolu fekk du loolu am kooku ñi xamul rek ñooy wax loolu waaw mais man Baay Faal moom naam ay jafe-jafe du ñàkk ci boobu boobule liggéey wante it Bakary mu ngi naan ne ñi nga xam ne ay jeune leen te ñu bëgg a nekk ci kaw tali bi euh, day am dynamisme wala sax pédagogie boo xam ne da koy wax ak ñiy utiliser boobule tali ndaxte it moo tax Bakary day jël parfois daa di mbëkk sànni tànk wala sax sànni loxo yi loolu lépp doon ay pédagogie yoo xam ne da koy wone ngir ñi nga xam ne ñooy janoog moom ngir mun koo comprendre. di koy waxal eh, eh, tàll bi boo gisee loolu chauffeur yi duñu mbayante loolu moo tax cest à ma def leen ma leen di ambiance yooyu seen au moins ñu di seen stress. ay perso waay perso yooyu moo tax ma leen di kii di kaf di kii des fois ma ñëw. def ay affaire def affaire dama noonu bon di leen ah. tànk bi ngay def ah, ah? tànk bi doo tànk la rek. waaw pour ñu gaaw. waaw tànk bi pour ñu gaaw la waaw. des nag bon mbëkk mi nag moom mbëkk mi moom mooy ñëm direct ñu ñëm tout droit. mbëkk bi tout droit la. waaw gauche bi moom mooy jàdd bi. waaw. vraiment vraiment si dëgg-dëgg ñoom chauffeur seen bopp ñoom jox na ma cër franchement Pader jox na ma cër ndax li may sama liggéey moo rafet ñoom ñëpp dañ koy wax ku ma ci ne arrêté mu arrêté ku ma ci ne taxaw bi du ñàkk nag ak ñi ñuy xam ni boo waaw non moom koy au moins euh, ku ci ñëw ma jàngal la ci waaw ku ma gis ma jàngal la si vraiment. su ma amoon benn kii bi nga xam ne mën naa fa kii au moins ñu may formé gaay yi waaw. waaw aussi gouvernement bi tim jàpp ci comme ni ci waa maire yi jàppe jamono ji nag amul lenn loo xam ne mi ngi koy tàllal loxo ci état Sénégal ndaxte it mi ngi xamal ne ancien militaire la wante it Bakary mi bu guddee dafay dem gardien bu xëyee ñëw nekk ci tali bi wante it mu ngi naan ne su amoon rek message boo xam ne daf koy wax état mooy mu liggéey ndaxte it Sénégal liggéey rek moo ko mën a téye. moo daal man man dama koy ñaanal yàlla ndax moom liggéeykat la liggéeykat la vraiment mi ngi liggéey waaw dama koy ñaan nag man balaa ngay wax président nga liggéey ndax loo liggéey fekk di def lu baax di wax lu baax di jëf lu baax ah dama la yaakaar ne yàlla mën a nakal tey yàlla indi na ma leen tey ba ngeen ñëw tey ma jàkkoor yeen di wax yaakaar naa ne bu ko président déggee ah vraiment man damay jàppale askan bi di ko jàppale jàppale état bi waaw Bakary bi bëriwul ci tali bi wante it ku romb rek yaa ngi yaa ngi koy tàllal loxo di ko encourager ngir liggéey bu rafet bi nga xam ne mi ngi koy def Bakary nag instant bi bu ñu sañoon am ay Bakary yu bëri ngir mën a lijjanti tali bi ndaxte it accident yu bëri dañuy duut baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñooy conducteurs yi wala sax ci seen doxalin ci ci tali bi